keroog arène nationale tuq sa bënn saañ ba réer la dañu bëgg a waxtaan ak moom ci journée bi nga xamante ne ci la ñu jëm dimanche journée boobu ñu bari ñu ngi naan dina am du am ak lu waral du am bi ak lu waral dina am bi yëpp dinañ ci waxtaan ñu leen di jëfalaat bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak wasaare làmb di leen wax ni bàyyi jiili seen xarit seen doom nday yegg si la ñu dugg ci biir kër gi yëngu-yëngal ànd ak aadama ànd ak wasaare bëpp bisimilah maa ngi mel ni ku moom kër gi de maa ngi mel ni ku fi dëkk. Euh, mbokk yi comme niñ leen ko waxee ci biti noonu la ñu def ki ñu dalal mu ngi noonu muy Diaks Production Diaks nag ku ci nekk xam na ci événement yu mag rawatina lit traditionnel bi mise yi ñu bare bare bari yaakaar ni kenn waru ñemewu koo teg ci làmb moom da ko ciy teg loolu yëpp moo waral tey après Covid bi. mu war a tëgg dimanche bii di ñëw ñu war ci mën a waxtaan lu baree bare ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi présent maa lay nuyu bu baax. waaw ji li ñu ngi lay fay bu baax a baax di nuyu boy bi. su ma tuddati Adama Adama. Hmm. Adama Seexu Awa <laughs> ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di nuyu Basirou. Hmm. di nuyu gaa hmm. di nuyu le monde de la lutte comme ni ñu koy waxee. mooy ñi si bokk yëpp daal. ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi suivre site bi dans le monde entier. Mm-hmm. te te te bëgg làmb mm-hmm. euh, président dañuy ñëw ci dellu ginnaaw tuut. Mm-hmm. ci biir ci avant Covid. parce que dem nañ ba benn moment ñu ne première vague deuxième vague. ñëw vague bi ñëw fi ñu tëj lu bare bare. moment bi ñu ko tëjee nan nga gisee làmb ak lan lañ ci waroon def parce que jàpp naa ni tëj bi waroon nañ ci mën a jàngat lu bare bare ci ay situation làmb. ah waaw xam nga du situation làmb rek boo waxee Covid. Mhm. loo xam ne c'est international la. waaw mhm. ah, egg si dal ci àdduna bi yëpp. Mhm. jëngal lépp jaxase lépp ñëpp afole ba léegi kenn amul lu ko faj. dañuy essayer rek vaccin yi ngay gis ñu jof nit ñi yëpp nit ñi ay ko bàyyi lañu rek. vaccin da nga koy jàng di ko di ko di ko tester pendant cinq ans lu minimum cinq ans balaa nga yenaan am naa vaccin. mais Covid bi dafa ñëw di rey nit ñi di yóbbu rek. laboratoire yi ba mu mat. Mm-hmm. li ñuy testé am ci yaakaar ba 70 pour cent ak yooyu 80 pour cent ñu ne ay ci nañ ko dóor nit ñi rek muy sauvé yàlla ay nit ñuy continuer di essayé mm-hmm. donc lu jaaxal àdduna bi la di jaaxal àdduna bi nag làmb lu tuuti la ci biir àdduna bi. Mm-hmm. ci biir sport d'abord lu tuuti la ci ensuite ci biir àdduna bi. sport lu tuuti la ci àdduna. donc loolu dafa ébranler société àdduna yëpp. massa nag Afrique ñun ñi nga xam ne amuñu doole. lu ñuy def dañu yaakaar ñeneen ñu ñu doole jàppale ñu ba ci vaccin bi yi nga gis ñu andi. yépp ay dëkk yu président Macky Sall ak gouvernement am ñaan ñu dimbali ñu may ñu ay vaccin ah ñenn ñi vacciné wu ci. Mhm. waaw léegi nag arrêt yooyu mu def nag euh, c'est des arrêts yoo xam ne li tubaab di wax c'est fatal. dafa metti ci làmb. Mhm. waaw. Euh, dafa metti ci làmb mais jékki-jékki yow avant Covid bi ci moment bi ñuy arrêté activité yi. Mhm. amoon na mbër yooyu jotoon jox avant. waaw ci bëre dóor man tëggoon naa daaw bëre dóor balaa ñuy arrêté Covid xam nga mars la ñu arrêté woon. daaw jéeg. Mm-hmm. ubbiwaat daaw mars bi ñu ubbee daaw mars amatuma woon combat dóor man. Mm-hmm. parce que man fekkoon na ma tëgg sama combat ba pare doon waajal beneen Covid bi ñëw ma arrêté mais bon di depuis boobu euh, maa ngi tëggalaat maa ngi tegaat combat dóor ren ji bi ñuy arete waate mais kon yow président bi ñuy tëj affaire yi fekk na yaa ngi téye sa xaalis. yow mu jotoo jox affaire téye xaalis man nga man damay fonctionner rek. man mm-hmm. boobu du problème mu mbër man li may gën a fonctionner ci lutte simple la. ci laay gën a fonctionner ñëpp xam nañ loolu. donc lutte avec frappe mu amee benn combat si année wala ñaar doy na sëkk. Hmm. ñu téye ko ñu ñàkk ko téye ci am man su may su ma li may liggéey dama koy budgétiser. su ma hmm. ne war naa tëgg ñaari combat damay lijjanti xaalis boobu teg ko de côté bokkul samay programme dama ko laal pour rien au monde. Hmm. noonu laay liggéey. voilà donc ma ma laal ko ma ñàkk ko laal mu ngi foofu toog. voilà ku nekk ak ni ngay doxee daal. dëgg la am na solo. waaw euh, ñu ñëw ci léegi moment bi nga xam ne ubbi nañ. saison làmb ubbi na bokk nga ci promoteur yi njëkk a tëgg. nga war a tëgg dimaas ñu bari nee nañ jag sa terrain gaal gi dafa bari ndox. Mhm. amateurs yi nee nañ jag sa nan lay def ak terrain gaal gi. Mhm. mu mel ni comme communication bi war a dem ci làmb jooju mu mel ni dafa des terrain gaal gi ngay tëgg wala stade Iba Mar ngay tëgg ak terrain gaal gi ndox mi nooy dundee ak moom. xam nga làmb nag man souvent maay ubbi. parce que mhm. lutte simple la ñuy démarrer. saison bu ñëwee bu jeexee ñëpp toog nekk seen ay kii ñu ubbi waat di xaar licence tey licence ëllëg un deux semaines trois semaines un mois jékki-jékki kenn annoncé ñu ne ay ci nañ démarré làmb ji toujours lutte simple. Mm-hmm. lutte avec frappe soo ko gis mu démarré novembre. wala octobre. dañ daan ubbi saison bi sax nit ñi di bëri lutte simple ba ay décembre ñu door a commencé bëri doole. Mm-hmm. wala loolu boo ko gisee li ko waral mooy écurie yi avec frappe li si ne dafa bëri écurie yi manager ya euh, Euh, ak lépp daal. Hmm. ku ci nekk war a dem affilié wu ku ci hmm. nekk war a dem fay say yëf ku ci nekk ak say difficulté hmm. loolu moo tax lutte lutte avec frappe toujours day gën a day gën a lent. bu dee lutte simple nag si amul boobu problème ñu si ba ëpp ay individuel lañ da ngay jël sa licence dem rek fay say kii rek taf rek ay ca compétir yi soo gisee loo compétir. waaw comme man nag yàlla def na dama nekk ci deux plans yi. lutte ah, lutte simple laay ci ubbi dóor ay 3 4 journées balaa ñuy xooxu frappe chaque année c'est pareil même su ma ubbi woon làmba ji sax. su gars yi ubbee sax man su may dóor rek damay enchaîner. Hmm. noonu la demee léegi nag bi ñu mujjee tëj daaw maanaam du daaw sax loolu c'était au mois d'août. Hmm. juillet août président bi muy wax naan dañuy teel a man gëmuma ko woon sax wax fa dëgg yàlla. Hmm. pour man dañuy ubbiwaat octobre wala novembre. mais heureusement gars yi jël def seen plan def vaccination ak yooyu ba ñu mayaat nit pour ñu continuer. léegi ñu war a ubbiwaat octobre. léegi bi ñu ne dañuy ubbi premier octobre mooy date bi nga xam ne mën nañoo ubbi officiellement CNG. ñoom ñu def réunion convoqué ñu ay vers début septembre. Mm-hmm. bi ñu woowee début septembre ne en fait dañ ubbi premier octobre. mais comme dañu arrêté euh, un mois mu desoon ay journée léegi ñu am journée nañ leen convoqué pour ñu fay leen seeni ay dat mm-hmm. noonu la saison bi toogee. Mm-hmm. léegi ñooñu ñu woo leen man ci laa bokkoon. aw moon bëri doon mais man ci laa bokkoon parce que premier août dama waroon teg 5 millions Iba Mar Diop. donc ci laa bokk. waaw bi ñu ñoom ñoom tonton Gaston ak ñëpp a ñëw ñu ne léegi ubbi nañ saison bi octobre ba 31 décembre. Hmm. pour ñi nga xam ne ameloon nañ leen date ku nekk choisir sa date doo génn foofu. Hmm. fii ba 31 décembre. 1er octobre ba 31. ba 31 décembre. Hmm. combat yi desoon. dañu war a jeex. ñu door après de janvier ñu ubbiwaat saison bu bees bi la. nii la demee ba léegi ñu ngi ci saison daaw bi. ci sama jéggi dégg man. waaw léegi bi ñu ñëwee. ñu ubbi date yi. Mm-hmm. ku nekk tànn li nga bëgg jël sa date combat yi nga amoon enregistré ko nga tànnaat date ñuy tonn par kenn kenn ni ñu ko toppee woon te woon. ba mm-hmm. ñëpp tànn man ñu woo ma man leen boo man simple laa amoon kañ ngay dëkk tëgg man leen jox leen ma le 3 gars yi duñ duñ ci tëgg kay lu wax ma ko fay bàyyi. waaw mm-hmm. lañ ma joxee le 3 biñ ma joxee le 3 octobre ñoom ñu ne dinañ commencer renouvellement yi à partir du 15 septembre bien que ñoom ñu ngi war a ubbi 1 octobre. Mm-hmm. xam nga donc bu ñu commencé 15 septembre mooy ñun am nañ 15 jours pour que nit ñi. Mm-hmm. ñi bëgg a bëre dem defar seen licence. la donc pour man 15 jours ku bëgg a bëre war nga si mën defar sa licence. Mm-hmm. ma ne donc mun naa commencé 3 octobre. gisu xamoon naa ne gaal gi nawet la dafay fees parce que gaal gi ban la. bu tawee taw tawaat euh, gis nga taw yu mujjee ni mel. te taw yi jeexul des na. donc ndox baa ngi fa taa alors man bi may jël Iba kon yow bi ngay programmer stade Iba Mar nga jëm. waaw ba ba amoon naa gaal gi ba pare gaal gi bi ma koy réservé depuis daaw la. Mm-hmm. déwén xam nga déwén. 2022. Mm-hmm. Mm-hmm. man réservé naa gaal gi ba pare li ma fa soxla su ma fa yàlla bàyyee man noonu lay liggéey. effectivement. <laughs> comprendre nga. Mm. voilà. léegi sama am gaal gi terewul ma wuti leneen feneen. bañ ma joxee gaal gi ma am li ma fa am. dama ñoom ñu ubbi man a joxaat na Iba Mar laay commencé Iba Mar ndox du ma fa gêné. ñu mm-hmm. jox ma le 3 noonu la demee. Mm-hmm. kon ñu ci bari ñi jàppoon. ñëpp dañ jàpp ne gaal gi la. te fekk ni yow yaa ngi. parce que parce que xam nañ ne gaal gi laa doon tëgg. Mm-hmm. te xam ñu bari xamuñu ne Ibamar ubbiwaat nañ ko fii ba décembre. loolu mooy manque d'information bi. ba pare man communiqué ma si. parce que communication dafa am heure. doo nekk di sonal nit ñi ay waxu làmb te nit ñi taluñu ko ñu ngi wax dem dem Touba. loolu la nit ñi tal. bu fi neex wax làmb lan lay jëriñ. du jëriñ dara moo tax déggoo wax dara. dama ne tant que màggaluñu ba ñibbisi du ma waxu làmb làmb une semaine doy na ci pour ñi bëgg a bëri nañu bëri ñi bëgg a seetaan ñëw seetaan. Hmm. doy na sax. léegi mu mel ni Jax mu ngi jëm stade Jom Iba Mar. waaw le 3 mbër yi nga xamante ni tey mbër bu ñëw dafay indi licence am ancienne hmm. licence bi. Hmm. ak visite médicale am ak mille francs. pour ñu mun ko renouveler foofu. pour ñu renouveler waaw loolu loolu CNG moo ñu ko may. foofu du renouveler kaayu licence. Mhm. il faut mbër yi xam loolu. Mhm. nit ku nekk li ngay liggéey da nga koy respecté. Mhm. bu saison a la nga war a def sa yoon. parce que yaa jël ne làmb mooy sama mbër sama sama métier. effectivement mais doo renouvellement licence il faut nit ñi xam ko. balaa yëf bi di ñëw nga jël say matuwaay préparer li ngay préparer bu démarrer nga ñëw teg sa xaalis teg li nga war a teg ñu defal la sa yëf nga dem sa yoon entraîné ji foo gis compétition dem compétir. Mm-hmm. mais da nga leen di neexal pour ñu compétir ci loo xam ne kaay am xaalis loolu tamit foo ñu wax ko. Mm-hmm. voilà nañu respecter métier bi ñuy def respecter métier bi ñuy def mooy nekk en règle d'abord. mun mm-hmm. loo ne mbër nga amuloo licence munoo ne mbër loo bëgg bëgg bëre sa licence bu nekkul en règle boo ñëwee ci galaa bi kenn du la jël. ñu dem ba combat bi des benn fan wala ñaari fan ngay doog a ñëw di. jaabante nga ñëw di bërëx bërëx di kii ko. di renouveler respecté li ngay def. nit ki day respecté li ñuy def gis nga man saison bu ubbee. Mhm. am mosul saison musul am ñaari promoteur jiitu ma ci fay licence man. Mhm. kenn du ma fa jiitu. ubbi na tey ñëw naa tey wala ñëw naa ëllëg fay li may fay. Mhm. man noonu lay doxee. même bu ma tëggagul damay ñëw nekk en règle. teg sama yëf toog xaar teg samay programme man noonu laay doxee. Hmm. léegi nag bi ñu ñëwee Ibamar am nañ quinze jours bi ñu dawalee 15 heureusement mu tombeek heureusement mu tombeek sélection nationale am. Hmm. bureau CNG ak ak ak euh, directeur technique yooyu def seen sélection ñu nekk à l'arène nationale entraîné def seen sélection pour CEDEAO bi heureusement def ci dal. Hmm. léegi bi ñu defee loolu entraîné ba pare ñoom bureau CNG. mbër yi ñu convoqué woon 22 mbër yooyu. Hmm. ñu ne ñoom dañ leen di may licence ren. 22 mbër yooyu 22 mbër yi ñëwoon sélection. Hmm. pour dem bëri CEDEAO. Hmm. ñu ne ñooñu nañ leen may licence. pour remercier leen ci sélection bi ñu leen def nii la demee. de mbër yooyu ñu renouveler leen seen licence gratuitement loolu Senghor CNG moo ko def. moo ko def may leen ko. may leen ko. diggante boobu am na ay benn mbër ñaari mbër benn mbër 8 à 10 mbër ba maximum 15 mbër ñoo fi renouveler normalement ci bureau 15 mbër. à peu près à peu près laa lay wax. kon tey Jax bu woote woon euh, mbër yi ñëw renouveler seen licence ba pare. Mhm. matuñu 64 litres. foo ko jëlee 22 yële dañ leen may. te 22 yee ñu ngi ci préparation compétition bii xel mun naa am ñu ñëw bii xel mun naa am ñooñu seen compétition pare nañ ko. terew dara terew leen ñëw ku bëgg ñëw day ñëw compétition préparé nañ ko compétition bi mois prochain la. Mhm. sélection lañ def. dinañ tëjuwaat fi mu nekk ku nekk ñibbi na. Hmm. nekkatuñu sélection. kon instant yi ñoo moom seen bopp. ku nekk yaa moom sa bopp ci ñoom ku bëgg ñëw dana ñëw. compétition teewu leen <laughs> loolu il faut mu leer ci bopp nit ñi président nekkuñu si euh, regroupement ba jeex na. kon lay daal amul lool. lay amul ku bëgg a bëre ci ñoom am na licence jox nañ ko licence bu valable. te amatul lay. mbëri de dañuy làq sa duma ñëw lañ lay wax ba jour ba leen yaa ma leen gën a xam yaa ngi seen biir ah, ko wax léegi nag am na quinze yoo xam ne à peu près du 15 sax dama wax noonu rek mhm. ñi ñëwoon dem def seen renouvellement direct fay mhm. léegi nag bi ñu xoolee situation ba bi may yóbbu mise man barka démb ma ne président ah andi naa mise mais man li ma soxla ci mbër du ma ko am mhm. ndax yaakaaruma fukki fan ak juróom nga am fi quinze mbër ñetti fan yi fi des ma bëgg fi am cent et quelques mbër mënta ne. mënu nekk xel mënu ko nangu. Mhm. léegi nag comme noonu la demee mayaat ñu li ñu mayoon daaw daaw daf ñu mayoon bi ñu tolloo nii. Mhm. ñuy wax ma wax ko ne ko may ñu mbër yi renouveler fële bien que lool du dëgg. Mhm. parce que loolu peut-être mën na leen pousser ñu ne ah comme ñëw rek la renouveler bëre dina pousser ñu bari ñu ñëw. parce que boo calculer aussi mbër yu bari dañ dëkk ci àll bi. effectivement te ñu ngi si nawet. Mm-hmm. ñu ngi ci màggal Touba. Mm-hmm. nekk ci Covid yëf yi dafa metti si ñoom surtout à lutte simple amuñu moyen. Mm-hmm. kenn du leen jox ay avance naan demal bëri ji. ñi ci ëpp. alors si difficulté lañ nekk. imagine léegi nag mbër bu war a jógee Iliya ay Bettenteeg ay feneen ak feneen. wala fu ko gën a sori. war a ñëw ba dakaar pour renouveler licence. imagine li muy paas. ñëw CNG fayaat 3000 am fay léegi renouveler licence am. sallallahu alayhi wa sallam dégg nga wax ji léegi. mbër boobu du am boobu moyen. Mhm. imagine ko war a ñëw fay renouveler ñibbiwaat fay préparer làmbam pour ñëwaat encore ak ñaari accompagnant dafay mett ak jafe-jafe yi. dafay metti man foofu laa teg sama xalaat. Mhm. ma expliqué ko président euh, Bira Sène mhm. ne ko yëf dafa metti si booy amuñu. léegi nañ ko def benn voyage benn ñëw bu ñuy ñëw pour làmb ji boo communiqué nga ne may nañ leen. kuy ñëw ku mën a ku bëgg a bëri am intention bëri na ñëw ak licence am ak visite technique am kese. Mhm. man Jax malgré difficulté yi am gis naa ko man dinaa leen fayal ku nekk seen 3000. déedéet waay président waaw 3000 yi mbër yi waroon joxe yow. yaa koy génn maa koy fay 128 mbër ñu ñëw bu soobee yàlla. ah président yow la dañ laa war a féliciter. ah déedéet. dama ci bokk. lu CNG may na 22 mbërëm. Mhm. lu tax man man maa mën a may 128 mbër. wallaay. mbër yi war a compétir lañ amuñu. Mhm. da ngay gis ñu bëgg mi amuñu. dëgg la de. mu métti ci ñoom ñi wër fu ne. waay war a préparer war a ñëw. man mm. su ma leen mënee dimbali ci lool mhm. sant yàlla ci laa bokk. naay sama jafe-jafe sama classe séeréer yi nga xamante ne bu. bu ñu entraîné ba pare xel ci cere rek. lay dem des fois am cere sax am sax cere te du lu bari. wallaahi loolu nga leen foofu ngay xoolee. Mm. la vie est dure Sénégal dafa metti àdduna bi yëpp moo metti du sax Sénégal kese mm. bi crise bi nga doon wax dafa dugg ci àdduna bi jaxase lu bari mu metti mais président est-ce que du Sénégal moo ko gën a yëg du kese de du Sénégal kese du Sénégal kese fépp la man sax damay mujj di bippe sama bopp di xool waxoon sama téléphone mu ngi sonné <laughs> président kenn woowatu <laughs> waaw xam nga euh. donc pour te dafa metti dafa metti mm-hmm. donc su dee mën nga dimbali say say jarbaat say doom say rakk yéen a bokk li ngeen bëgg di ko def. Hmm. defal mu rafet rek. am na solo ma lay jaajëfal bu baax kon rendez-vous le 5. incha allah le 3 le le 3. Iba stade Diop Iba Mar. waaw euh, foofu ndox taawu fa de neel gaa yi dinañ fa gis ndox bi du taa de. déedéet foofu ndox taawukaay te gëj nañ koo gis nag. stade ba dafa gëj mel ni ma ne déggoo li ma la foofu amul ay sièges yu damm de. Ah, macha <laughs> allah ku ñëw toog toog bu normal tëb wàcc fecc yéegaat. Hmm. foofu dafa neex pour lamb simple. làmb sax dafa neex stade ah, dafa neex képp ku fa nekk. dafa neex da ngay dund làmb ah, rawatina li traditionnel bi. dafa neex euh, ñu ñëwaat ci leneen. waaw démb gis nañ nga joxe avance. waaw avance bi nga joxe mu doxoon ci diggante ñaari xale. yoo xamante ne tey bu ñu doon noté. Mm-hmm. meilleur combat espoir yi. Mm-hmm. wala meilleur espoir ci ci ci année bi. ñaari xale yooyu mënuñu cee génn. Mm, muy caatu daaw dafa am gis di wax de caatu daaw dafa am ak kaaw. waaw ah, journaux yaa ngi wax ne c'est les waaw. waaw ñoom ay meilleur lañ. loolu ci lañ bokk <laughs> ci meilleur yi ci meilleur yi lañ bokk ci fukk meilleur yi. léegi mu amoon ci tournoi bu ñu doon yëngu. ñu jékki-jékki tournoi bi gis ñaari xale yooyu dem final. ok final bi promoteur bi tëggu ko ñu jékki-jékki gis Jax décroché combat boobu. Hmm. bëgg nañu xam lan moo waral nga décroché combat boobu avant combat bi di taxaw. Hmm. wala da nga indi tournoi wala da indi combat. final hmm. tournoi bi wala combat. man mënuma indi tournoi da nga dégg Jax tournoi. déedéet. ah kon bu ma ne kii am tournoi moom moo am tournoi man aw ma tournoi. noonu ñaari mbër yooyu ñoo final woon. voilà ñooñu ñoo final ci tournoi li mu tuddee tournoi. Mhm. mais tournoi boobu li si nekk. li mu tuddee tournoi du tournoi. parce que tournoi dafa am nuñ koy tëggee. te moom dafa teggi charte yi bi muy tëgg tournoi. loolu moo andi lii yëpp. du leneen. nan la teggee charte yi. tournoi boo koy tëgg dangay dem CNG ne bëgg naa tëgg tournoi. Hmm. mbër ta sàngam mbër sàngam mbër sàngam mbër sàngam mbër sàngam yi nekk écurie nii nii nii nii ñi ñooy seen manager ñoom laa décidé boole ci benn tournoi. Hmm. ñu defal li ñuy wax cahier des charges ñu bind la règlement bi ñoom CNG. ne hmm. euh, nii ak nii la temps de journée la nii ak nii ñooy def tirage arbitre yi validé ñu nga fay su ma juumul li nga war a fay à peu près ay 150 la. ñu validé ko. nga am sa cahier cahier de charge comme livre bële. jox bër bu ne bosam ak manager am téye sa bos CNG téye seen bos. ñu ne war a démarrer tel jour ñu démarrer. fay nga say yëf léegi nag li si des mooy say avance ak yooyu yaa koy gérer di fay joxe say avance dem régulariser say combat tëgg sa journée. ñu koy topp ba mu egg. tant que eggul sa mbër yooyu nga dugal ci sa tournoi ñu jël engagement dañ koy bëre. Hmm. vis-à-vis du CNG mënuñu bëreel kenn si àdduna. Mm-hmm. loolu la Idaly deful defu ko. dafa mm-hmm. jël ay booy rek yu mu xam wala yu mu yaakaar di leen boole di joxe avance di tëgg tuddee ko tournoi moom. tuddee ko tournoi mais combat nommé lay doon quoi. parce que combat bu mu tëgg rek day day day jox li mu warloog mbër bi daal. non weddiwuma loolu. Mm-hmm. waxaale nag ay mbërëm. ñoom d'accord nañ ku nekk wóor na ne ci saison bi di nga bëre ñeenti yoon avantage la ci mbër. du dëgg. loolu nga am sa benn combat taxaw di xaaraat ku ma tëggaat mhm. bu ñu ne la dugal nañ la si tournoi da naan ah au moins tournoi bi naa si bëri quatre fois ça m'a quatre galas de plus si mhm. sama si sama mhm. avantage yu mbër la moom nag joué ci loolu def ay yëfam organiser ay booyam di tëgg ay yëfam bi mu tëggee ba covid bi ñëw yëf yi arrêté bu covid ñëwul dina ko eggali bu fekkoon amul da koy eggali mais bi moo baare yëfam muy cas de force majeure egg si dal si Hmm. organisé wul sécurisé wul yëfam événement loolu moo ko yàqal. léegi nag bi mu ñëwee ba Covid am man yàlla xam na ne seetumaa benn benn match ci benn gala. Hmm. ci ci tournoi am. Hmm. seetaanuma ci benn su ma waxee la yàlla rek. toog naa fii ñu woo ma téléphone. ne ma eh am na ñaari booy yu ñu coow ci dëkk bi Kaaw Gourdin ak Kaaw Daouda Fall font partie des meilleurs espoirs que doo leen tëgg. ma ne leen ñaata la cachet bi ñu discuter ba d'accord ma joxe sama avance. dégg na ñuy wax naan finaalul idaali final ma ne finaalu kan idaali ma ne ko ci naka ñu ne tournoi ma leen attendez je regrette y a pas de tournoi. Mhm. moo organisé ay yëfam mais organisé wul tournoi un tournoi dafa am noo koy organisé man Jax production su ma doon organisé tournoi kenn du jël sama mbër. kon xale yi bi ngay waxtaan ak ñoom amul woon benn jafe-jafe baatal tontu la woon. non man du ma wax ak xale yi sax man amul may wax ak xale yi mbër booy wax doo wax ak mbër. Mhm. manager ngay waxal. moom nga war a waxal manager moo lay proposé mbër nga ne mbër bi intéressé ma wax ak manager bi. Mhm. fay ma temps bu ma fay temps sama yoon nekkul ci mbër man man du ma wax ak mbër du ma woo mbër naan kaan kaay ma tëggal a combat manager bi ko yor. la mhm. règlement bi wax moom laay waxal. bu ñu waxee temps la bëri naa temps de combat am naa temps sama dernier combat lii la am dama daanoon wala dañ ma daan et cetera ñu négocier ba ñu juboo Mm-hmm. bu ñu jubbooyee ci kàddu ma ne jubboo nañ ñu ne waaw ma xooli beneen bor bi jubboo nañ mu ne waaw ma ne ko nañ ñëw leen ma joxe leen avance. Mm-hmm. yàlla dafa def nag ñaari mbër yoo yëpp benn benn manager la ñu ñoom ñaari mbër yëpp ñoo bokk. benn ñoo bokk benn manager xam nga dafa gën a yomb. mais président est-ce que loolu tamit jaadu na. benn ah. ñaari mbër. waaw benn manager. manager bu nekk ñaata mbër nga yor. mais yor ñaari mbër yoo xam ne dañuy compétir. ñoo war a laal dama ne am na manager yu yor cinquante mbër. loolu tamit CNG war nañ ko xoolaat. loolu CNG mënu ci dara. lu tax mbër yi dañu bari ku nekk day wut manager am manager yi mën nañ ci dal yàlla def comme ni nga ko waxee. Hmm. ñi daal di d'accord ak ñoom dugal leen ci tournoi. gis na ne ils sont mu jël leen mu dal ak mu mu tombé mu dal ci ñaari manager benn manager bu leen moom. mënoon nga nekk manager man ma nekk manager ku nekk am sa ñoo dugal benn mbër mais mun yow ci sa mbër yi nga yor. Hmm. ñeenti ñeenti mbër dugg ci benn tournoi parce mais est-ce que du ñu bu ñu du ñu jàpp ni combat bi idaali waroon tëgg tëgg tournoi bi. Mhm. ba dara desul dudul final ñu jékki jékk gis ni Jax tëgg na komba bi te dégg naa fay nga booy moom fay nga leen xaalis boo xamante ni <laughs> mosuñu ko laal ci seeni kase ah. dégg naa fay nga leen ko est-ce que kon beneen promoteur bi idaali du jàpp ni jaay doole da cay am. jaay doole mosu ci am. déggoo li ma la wax li ma la wax yëpp kon déggoo ko. <laughs> maa lay dégg baax. <laughs> kon nag boo waxee jaay doole jaay doole si am. Mhm. moom moo sécuriser wul événement am ba booy yi jëli engagement feneen booy yi bu fekkoon ne am na lu leen tënk téye leen kenn mënul leen tëgg su ma leen fayoon 2 millions sax ku nekk. Mhm. du ma leen mën yóbbu fenn. il faut ñu régler moom seen problème am bu mu jeex ñu doon maa mën a bëral mais comme amul dara lu leen téye vis-à-vis du CNG bi nga xam ne moo yor làmb. Mhm. ils sont libres. am na ils sont am na solo ñu jël seen engagement imposer ma ay prix yoo xam ne mosuñu ko am ma fay leen. man lijjantiwuma loolu. mbër loo ko fay mérito nag. ñoom ñaar ñoo fas yéene bëre grand combat bi. ñu tëgguma final de. mais ñoom ñaar ñoo fas yéene bëre ñuy bëre. ñoom ñaar ñoom ñaar. di nga ci toftal yeneen combat xam naa. waaye yow combat kaye bi ma wax la. kaye ma liiral la. wallaahi bu doy waar. waaw la ko wax de. journée la. wallaahi. ko xam. fu mu dëkk. Pape Dianka xam nga ko. Pape Dianka déedéet. <laughs> yow xam mbër yu bari de. déedéet xam nga baba Baba Jaxal. Baba Jaxal déedéet. <laughs> yow xam nga mbër yi <laughs> am na beneen boy bu ñuy wax Madi. Madi mooy daje Gorofil. Gorofil. Euh, jaata mais da may wax ku ci lekk écurie bi. non écurie nag man xaw ma écurie nag il faut ma bind ko. ayca voilà. Hmm. booy Malop. booy adversaire biñ ko waroon jox dañu bokk sëriñ. ñoom ñaar. waaw ku bokk sëriñ duñ bëri. ah dañ ca sëriñ ba. sëriñ bi leen di ñaar ñoo ko bokk sëriñ bi ah. yàq combat bi. waaw sëriñ bi léegi nag ñoom ñaar ñëpp ku ne ñu ngi lay wutal adversaire. Mm-hmm. Pape Dianka bii. Mm-hmm. Doudou Bakassar la nekk moom. Doudou daaw laa ko waroon tëgg mu blessé. mooy ñaata combat Pape Dianka. wala est ce que du sixième combat ou septième combat. Mm-hmm. Baba Jaxal bii est ce que nekkul Rock Énergie côté yooyu je pense. mais booy yu tàng jër lañ. am na beneen booy Madi moom ak Gros Fil ñooy daje. caatu Dalifor dajeeg Thié. caatu Dalifor moom cee mbaa du cee dóor dóoraat bi. Ah, na. <laughs> moom la cee boobu la. dóor bu bu da bu Grand Dakar dajeeg caatu Kaza. Siteu ak caatu Kaza. xam Boy Maar. Boy Maar dajeeg hmm. frontière. Hmm. dajeeg Boy Notaire. Hmm. fils de Langsaane dajeeg jour 2. Tafa Leer. Biib Diop. Modou Sabala Bawol 2. Sabala. Sabala Bawol ak booy ci suuf deuxième journée bi. Sabala ku mu am. Bawol 2. ban Bawol 2 ah. Bawol 2. <laughs> xanaa bi ma xam ne. tegal foofu kaye bi bi la dóor dóoraat wala. du ma ne ma ne bu baax nga xam. <laughs> bu yéex doo am place non président làmb ji nar naa garaaw. bu yéex doo am foo ko yóbbu. arène nationale wala Iba ah, boy fa lañ jógee côté boobu lañ jógee. fa la ñu leen di yóbbu. Eh, nu mu tuddati eh, Kaaw Gourdin fu mu jógee Dalifor. waaw est-ce que dañuy jël kaar dañuy dox. Ah, traversé pont bi. traversé autoroute bi. jéggi dem voilà kan la jógee Géejawaay ñëw. Géejawaay. boo leen andee fi ñuy jëlee ay kaar di sonal. wax tuq sa bëll saaj ba la ah boo yëpp foofu lañ ma jaaxal mooy ni ngay ni ni ngay ni ngay dundee làmb ni nga koy liggéey hmm. parce que bu ñu ñëwee dañuy gis professionnalisme bi nga xamante ni. Hmm. duñ koy gis ci Jax production mu di ko dund ci làmb hmm. loolu lan la dafa am ñu ne sa ginnaaw di la xelal wala di la monter wala ah. yow yaay yaay. ku nekk si àdduna am nga ko la xelal amul ko xelam doy ñi ko kii que tu sois sa xel kese doyul ci àdduna bii yàlla daf ñu bool du sàkk pour ñu dund en groupe di yokkantey xel di yokkantey xalaat. président am nga xel macha allah am nga xalaat waaye am nga fit de président man bi ma la gisee arène nationale nga teg ñaata 10 wala quinze millions. 10 millions. 10 millions. damaa millions ngi ñëw ren. nee naa am naa fit. fitu lan. déedéet <laughs> ngi ñëw ren 1er janvier. bu soobee yàlla. loolu dina gën a yàlla may ñu fekke tal. amiin waay waaw 11 millions ngi ñëw. ponkal yëpp ngemb waay ci arène nationale. bëgguma ko arène nationale sax Iba Mar laa ko bëgg. Iba Mar Diop. xaju fa nag président. bañ a xaj. Iba Mar lañ koy dóor 2 heures ñu tëj stade bi 2 heures. booy laale foofu la gars yi di aña laa wax <laughs> pour tardé 10 heures nga koy ubbi 2 heures mu fermé. c'est loolu di <laughs> loolu di la waaye yàlla ñu yàlla may fekkee. ak amiin waay mu nekk ci jàmm. amiin ma lay ma lay jaajëfal bu baax. non yéen kontaan naa ci disponibilité bi ak taxawaay bi nga xamante ni yaa ngi koy jàppale. Mm-hmm. du ma ne wasaare waaye sit internet yi nga xamante ni. maa ngi gis yaa ngi liggéey ñoom liggéey bee ngi rafet. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. yéen ay ay xale yu góorgóorlu ngeen. Mm-hmm. lu ñu leen mën jàppale dañ koy jàppale bu doon suñu sago lépp day day baax rek. dëgg la mais nag àdduna ndànk-ndànk la ñu leen di démarrer par benn benn par benn benn yàlla di yokk am na ñu fi am tey ay télé yaa 40 ans wala 30 ans si ginnaaw wala vingt ans si ginnaaw. Mhm. xalaatuñ noonu nañ am télé. déedéet waaw yéen ni ngeen commencé baax na. Mhm. daf leen ndànk-ndànk rek di liggéey nag liggéey bi set tegu si yoon. Mhm. ngeen bañ a yàkkamti. parce que sama kilifa daan na wax ne àdduna pas à ndànk-ndànk. dëgg la voilà bul tëb di jéego di xool lu sori. wala lu rëy da nga koy am tey. dëgg la del jéego ndànk di jéego ndànk yi day jékki-jékki di ñëw ñu ngi préparé ay combat yu yoo xam ne yàlla defee gars yi jubbu. Hmm. dina tàng jër ren. Hmm. bi laa lay wax de. waxuma sax simple. bëri bi dóor. kon nan nga ci ñaari combat yoo xam ne bu taxawee. Hmm. yàlla na taxaw. amin yàlla na yàlla moo taxawee kon <laughs> loolu moom dama la koy yéene. yàlla na taxaw yàlla taxaw d'excellente journée. soobee hmm. yàlla. ñemewoo leen ko wax moom. non doo ko wax. ay bañ yeneen promoteurs yi daaw problème promoteur sax kii wërsëgam moo koy jël rek. Hmm. mais boo xalaatee benn combinaison da nga koy nëbb pour bu sotee rek nga jël ko. Hmm. mais boo ko waxee am na keneen ku ko xalaatul woon. eh waa ji wax na dëgg combinaison bi garaaw na. da ñëwul woon ci xelam. da yaa ko wax. bu dee lutte simple du problème lutte simple mën naa taxaw léegi nag ma doon bëgg a tëgg naa ñi ko ñemee bariwul. <laughs> amul risque. waaw may kàlle sama dal teg sama onze million balaa ñu egg si 11 millions na fekk tëgg naa 5 ou 6 journées yoo xam ne ay 3 mm-hmm. millions ak i 4 millions ak mm-hmm. 5 ñëpp xam nañ loolu ci laa nekk. Mm-hmm. amul jafe-jafe quoi mais bëre dóor bi fa ngay yoot ba téye sa grand combat. daf ci baax. jërëjëf maa lay jaajëfal bu baax a baax. maa lay fay vraiment kontaan ci ñëw bi. di leen remercier bu baax a baax a baax ci gis naa ni ngeen di jàpp sama yëf. Mm-hmm. vraiment yàlla mi am ah, yàlla defal ñu année boo xam ne. Mm-hmm. ah Covid bi bañ a dugaat. Mm-hmm. ba ba mu bañati am arrêt. ñi nga xam ne tëggoon nañ seen combat ñu mun ko eggal si jàmm. te yàlla mayaat leen doole ba ñu continué tëggaat yeneen. amiin bu ñu amul doole. du ñu mun tëggaat. du sotti. xale yi kon du ñu am. lu ñu def. Mm-hmm. moo tax ñi nga xam ne yàlla nattu na leen ba ñu nekk ci. Mm-hmm. yàlla na leen yàlla may doole bu bari. Mm-hmm. may leen wér may leen kattan. ba ñu mën continuer. di di di di tëgg te ñu siy for dara nag. pour am ci continuer am courage. parce que booy tëgg di daanu aussi bu yàggee da ngay arrêté. dëgg la mais booy for dara lu mu tuuti tuuti tuuti ngay ngay for. Mm-hmm. daf lay jox yokk courage ngay gën a am espoir mm-hmm. naan beneen su ma ñëwee naa gën a amaat tuuti naa gën a yokkaat naa gën a lii muy yokk ndànk-ndànk voilà nga xam ne loolu day nekk lu continue mm-hmm. mais tëgg daanu baaxul surtout bu yàggee ngay daanu daanu daanu après bor lay andi après problème après c'est la rek ko dëgg la yal ko yàlla mu yàlla yàlla musal ñun ñëpp ci loolu amiin yaa rabbi te yokk naataange vraiment mm. suñu làmb ji gën a dem si kanam amin amiin parce que vraiment war dem si kanam amiin amiin mm. euh, jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen Diaks production lañ dalaloon tey bari na loo xamante ne waxtaan nañ ko mu nekk njariñu làmb ñu koy jaajëfal bu baax ci disponibilité am di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen ay seetaan wasaare làmb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 léegi nag bi ñu mujjee tëj daaw maanaam du daaw sax loolu c'était au mois d'août. Mhm. juillet août président bi muy wax naan dañuy teel a bu man gëmuma ko woon sax wax fa dëgg yàlla. Mhm. pour man dañuy ubbiwaat octobre la novembre. mais heureusement gars yi jël def seen plan def vaccination ak yooyu ba ñu mayaat ñu pour ñu continuer. Mhm. léegi ñu war a ubbiwaat octobre. léegi bi ñu ne dañuy ubbi premier octobre mooy date bi nga xam ne mën nañoo ubbi officiellement CNG. ñoom ñu def réunion convoqué ñu ay vers début septembre. Mm-hmm. bi ñu woowee début septembre ne en fait dañ ubbi premier octobre. mais comme dañu arrêté euh, un mois mu desoon ay journée léegi ñooñu am journée yi nañ leen convoqué pour ñu fay leen seen ay date mm-hmm. noonu la saison bi toogee. Mm-hmm. léegi ñooñu ñu woo leen man ci laa bokkoon. aw moon bëri doon mais man ci laa bokkoon parce que premier août dama waroon teg 5 millions Iba Mar Diop. donc ci laa bokk. waaw bi ñu woowee euh, ñoom tonton Gaston ñëpp ñëw. ñu ne léegi ubbi nañ saison bi octobre ba 31 décembre. Hmm. pour ñi nga xam ne ameloon nañ leen date ku nekk choisir sa date doo génn foofu. Hmm. fii ba 31 décembre. 1er octobre ba 31 décembre ba 31 décembre. Hmm. combat yi desoon. dañu war a jeex. ñu door après de janvier ñu ubbiwaat saison bu bees bi la. nii la demee ba léegi ñu ngi ci saison daaw bi. ci sama jéggi dégg man. waaw léegi nag bi ñu ñëwee ñu ubbi date yi. ku nekk tànn li nga bëgg jël sa date combat yi nga amoon enregistré ko nga tànnaat date ñuy tonn par kenn kenn ni ñu ko toppee woon te woon ba hmm. ñëpp tànn man ñu woo ma man leen boo man simple laa amoon kañ ngay dëkk tëgg man leen jox leen ma le 3 gars yi duñ duñ ci tëgg kay lu yox ma ko fay bàyyi. waaw hmm. lañ ma joxee le bi ñu ma joxee le 3 octobre ñoom ñu ne dinañ commencer renouvellement yi à partir du quinze septembre bien que ñoom ñu ngi war a ubbi 1 octobre. Hmm. xam nga donc bu ñu commencé 15 septembre mooy ñun am nañ 15 jours pour que nit ñi. Mhm. ñi bëgg a bëre dem defar seen licence. dëgg la donc pour man 15 jours ku bëgg a bëre war nga si mën defar sa licence. Mhm. ma ne donc mun naa commencé 3 octobre. gisu xamoon naa ne gaal gi nawet la dafay fees parce que gaal gi ban la. Mhm. bu tawee taw tawaat euh, gis nga taw yu mujjee ni mel. te taw yi jeexul des na. donc ndox baa ngi fa taa. alors man bi may jël Ibamar kon yow bi ngay programmer stade Iba Mar nga jëm. waaw ba ba amoon naa gaal gi ba pare gaal gi bi ma mm-hmm. koy réservé depuis daaw la. Mm-hmm. déwén xam nga déwén. 2022. Mm-hmm. man réservé naa gaal gi ba pare li ma fa soxla su ma fa yàlla bàyyee man noonu lay liggéey. effectivement. <laughs> comprendre nga. Mm. voilà. léegi sama am gaal gi terewul ma wuti leneen feneen. bañ ma joxee gaal gi ma am li ma fa am. dama ñoom ñu ubbi man a joxaat na Iba Mar lay commencé Iba ndox duma fa gêné. Mm-hmm. jox ma le 3 noonu la demee. Mm-hmm. kon ñu ci bari ñi jàppoon. ñëpp dañ jàpp ne gaal gi la. te fekk ni yow yaa ngi. parce que parce que xam nañ ne gaal gi laa doon tëgg. Mm-hmm. te xam ñu bari xamuñu ne Ibamar ubbiwaat nañ ko fii ba décembre. loolu mooy manque d'information bi. ba pare man communiqué wu ma si. parce que communication dafa am heure. doo nekk di sonal nit ñi ay waxu làmb te nit ñi taluñu ko ñu ngi wax dem dem Touba. loolu la nit ñi tal. boo fi nekk wax làmb lan lay jëriñ. du jëriñ dara moo tax déggoo mu ma wax dara. dama ne tant màggaluñu ba ñibbisi du ma waxu làmb làmb une semaine doy na ci publicité ñi bëgg a bëri nañu bëri ñi bëgg a seetaan ñoo seetaan. Mm-hmm. doy na sax